jàpp Pape nice nga de. waaw Pape nice lañ leen. yaa ma gën a nice. xanaa Pape nice lañ leen. waaw. Eh, tournel xool caméra bi. non gis naa ko. xoolal caméra bi benn gars yi gis la. waaw. waaw ah, yow lan la ñu seen koñ. fi mu toll nii man maay jantal jantal paa. <laughs> man maay jantal paa maa ngi dëkk fii. an lay jantal paa. Pape nice. neex ngeen ma nag. ah mais merci beaucoup père. parce que fii nag war ngeen wax gars yi duñu koy bale. koy bale waaw. xam nga liggéey bu mu baax te doo ko doo ko toppatoo amul njëriñ. ñebe ñebul temps yi passé rek boo ko xoolee gis fii xam ni ñoom du ñu yëg fi mais war nañu ñu koy surveiller. loolu ah xam nga yéen a ngi fi taxaw di def lu neex nii. waaw xam nga xool nu mu mel xam nga melu koon gis naa waaw. mën nañoo liggéey nag mais mënuñoo yeggale. waaw ah, mu am finition. waaw ah, finition lu ñu amul. te boo si dox sax day mel ne luy bonde ah. li ma la wax léeg-léeg ko ragal sax day da xaw a ragal dafay dafay dëgërul. man li ma fi taxaw yëpp mu ngi mu ngi rëng leen di siyaar bu baax mais nice pas nice. <laughs> Bonsoir et bienvenue à tout le monde. Bonsoir et bienvenue à tous les téléspectateurs de la première chaîne de télévision privée du Sénégal. Bonsoir. Hier, à notre grande surprise, on a appris que Mnidov a été interpellé par les policiers chez lui. Il a été arrêté et malheureusement, on a demandé à son manager lan moo waral ñu jàpp ni dof ñu ne ñoom xamuñu ko ñu ngi dem centrale nous sommes en train de dire que on est dans un état de droit bu fekkee saaga moo tax ñu jàpp ni dof mais ñaata nit la ñuy jàpp ci Sénégal ñoo xam ne ils se font appeler des euh, activistes ou des liveurs ou même on les appelle des waa des défenseurs d'un parti ou d'un autre par exemple kii mën na nekk si opposition bi wala kii nekk si pouvoir bi dañuy continuer di saaga parce que loolu moom mooy seen euh, par exemple moyen de expression rafetul jekkul jaaduwul waaye bu fekkee sur le cas ni dof bi mu defee live bi ba emporté wu dafa defaat beneen poste jéggalu bu fekkee loolu la laa wax ah, xaw ma lan la mais bu fekkee loolu la je pense que waruñu ko ci jàpp parce que démocratie moom mooy nga permettre nit mu wax li mu xalaat ak ni mu ko xalaatee mais bu fekkee da nga am kenn koo réprimander dafay mel ne li mu bokkul ak yow gis-gis la ñu ngi ciy ñaan ñi nga xam ne ñoo yilif réew mi te yilif nit dof yilifaale ñu ñu bàyyi ko mu nekkaat ci activité am parce que nit dof c'est quand même euh, quoi qu'on puisse dire c'est une personne très très positive c'est une personne extraordinaire on va vous laisser le soin de regarder d'ailleurs sa vidéo on va commencer cette émission avec parce qu'on ne pouvait pas démarrer l'émission nit dof ci kanam tuuti au sommaire de cette émission nous aurons on va chercher Ndongo Di dañu dem seeti ko Ndongo Di parce que accident yi dafa bëri hip hop bi kenn déggul leen si mais ñoom am na benn way bu ñu wayoon boo xam ne war nañ ñu wax way boobu lu taxoon ñu way ko ak lan la ñu mën a def ba hip hop bi gën a sensibiliser loolu mooy rôle aaru mbedd Khalil de Akatsuki et Tala BTB seront là pour nous parler éventuellement de leurs projet à venir Pour toutes ces choses, nous vous proposons de regarder Nidoff. Ce sera juste après. bienvenue à tout le monde. Bienvenue à tous les téléspectateurs de la première chaîne de télévision privée du Sénégal. Bonsoir et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons vous passer une émission de Haroumed avec une conscientisation et une sensibilisation en ce qui concerne les accidents de la route au Sénégal. Il y a un groupe qui a bien fait son travail en écrivant un texte, illustration avec une vidéo à l'appui qui démontre qu'est-ce qui se passe réellement sur nos routes et quel comportement il faut réellement adopter pour éviter les accidents de la route. Parce que ça nous concerne nous tous, autant que nous sommes. C'est la raison pour laquelle on a voulu faire cette émission dans ce décor génialissime qui va nous permettre de connaître la vitesse à laquelle les Sénégalais roulent sur nos routes. On est en zone d'agglomération booy am permis dañ la koy wax ak euh, yow mi nga xam ne yow yaa nekk ci sa kër nga mën a gis tali bi comportement yi fi am loolu moo waral Ndongo Di et notre euh, bon je vais pas dire invité mais notre euh, parrain pour cette émission moo le baron de l'émission maa ngi lay ziar di la nuyu maa ngi lay delloo ziar Pape di Fall maa ngi ziar euh, ñiy seetaan aaru mbedd ñëpp all the community hip hop gaa yëpp gaal seen ñëpp maa ngi nuyu ñëpp di la ziar bu baax a baax di la di kontaan ci dalal bi quoi Merci et euh, avons-nous même manqué à nos obligations Ana Fada Mba il va bien waaw il va bien mu ngi ci liggéey bi xam nga moom dafa tàmbali euh, deuxième album solo bi war a génn donc loolu moo ko xaw a tënk ci liggéey bi waaye comme li muy tàmbali wax rek des dafa naan ma loo wax rek loo rek loo wax rek baax na waaye comme li ñuy wax rek liggéey bi moo ñu moo ñu moo jàpp mais mu ngi ci jàmm salaam Avant de commencer cet entretien où on, on va parler de Fado Freddy et de Ndongo Di, c'est quoi le secret pour rester tout le temps des frères unis au-delà de la musique, que vous soyez des gens qui se respectent mutuellement naka la ñu mën a jàngee ci yéen parce que groupe euh, comme euh, attention fragile objet fragile mel na loolu la mais vous vous avez. Euh, un groupe qui a su déchirer le temps et euh, défier les lois des seytaane qui viennent dire à ah, Ndongo groupe bi yaa ko yor boo bàyyee mu ah, tas. waaw ñooñu booleen leen mayee nopp rek euh, <clears throat> liggéey bi du mën a du ngeen mën a liggéey quoi bon secret amul secret parce que <clears throat> c'est liggéey ñu boole mais ci kaw liggéey bi am na leneen loo xam ne moom moo ñu boole loolu defe naa ni Sénégal ñëpp xam nañ ko et puis il y un respect mutuel il y vraiment benn. considération boo am suñu diggante mais c'est vrai que li nga doon wax dëgg la c'est rare maintenant les groupes parce que léegi boo xoolee sax dans le hip hop y a plus d'individualité que de groupe et c'est vrai que ce qui solidifie notre groupe c'est que mën nañ jàpp ne que longévité bi longévité bi ñu am moo ñuy dimbali aussi pour que ñu mën a garder et puis y aussi les fan am na ñoo xam ne tey jii ils suivent le groupe depuis les années 90 jusqu'à présent bàyyiwuñu donc sëgam ñoo ñoo bàyyiwul ñun waruñu bàyyi it comme li ñuy wax. à un moment donné boo nekkee groupe aussi di ngeen toll jamono boo xam ne ku ci nekk da ngay nekk sa place su morom. Euh, et puis tamit ça va au-delà de la musique man ak moom quoi voilà. au-delà de la musique il y a le respect réel qui existe entre euh, Ndongo Di et Fara Freddy pour permettre à tous les téléspectateurs de mieux euh, rassasier leur euh, soif de les écouter on va vous laisser avec le son pas de de de de. de l'accident sur la circulation hein ndànk décorail non non on va pas écouter ça on va regarder une vidéo en section live ci ñoom ñaar façon ngin bi ñu fasee yéene wane Sénégal ci seen art ci seen culture le talentueux Ndongo Di et Fada Freddy pour votre plaisir avec la complicité de Omar Diabel Diop jaaxle ndaw dafa sonn yey ay diplôme bëggeex ne noon bëgg tekki tekki bi lekk lekk bi doom bëgg fës ci télé bi def bës di bom yeah yeah yow yow yow bi bi bi bi bi yow yow yow yow yow sabada ne sama biir bopp gën a yor maay kama ma job solo a bëri bu dee dafa topp ne naa a toog a ba mu a dog yaaka la jamono dina mat soxnaa ki doom fu ma di fat li laa gën a bëgg maa ngi jëm fu ma kenn yàqal fa ma dama jeex taak cons bi la dund bëgg lu bees taak li sama show bi ma taak li nee sama maay yóbbu meer bi maak dama bëgg a doon star la ma tawal bi li ma bëgg yëpp yëpp xaju ci saam mënuma wax lépp bu ma kenn laaj maak ci yoon wi What's up, what's up, what's up? What's up? How life is treating you. Life. No more damage to society. Uh. No talking lolly like Rahman is the mind. Runis the mind. Rahman is the mind. What's up, what's up, what's up? We're colored to society. You walk my lully bag. Limits in a good time. So fuck me, we go out. Yeah. yo, wee wee wee yo, woo woo woo woo yo, yo yo yo yo, yo yo yo yo yo yo. Can I get a room tea later? You lose. You can, you can. Makachikarunya bote yagbogumus. Sometimes galette nuit de poutine dara tout fissous. yàgg fànde dugg classe taxu waaw lii euh, sabab waxtaan bi tey defe naa Sénégal yëpp xam nañ ko mooy tali bi euh, six kilo am na benn accident bu fa am ñeent fukki doomu aadama ak ñaar ñàkk seen bakkan teguñ ci semaine matagul semaine matagul juróom-ñaari fan Sakal am 22 morts mu nekk plus de 60 en mois d'une semaine mais laataa lool di am en 2018 si j'ai une bonne mémoire da ngeen a génne woon benn way boo xam ne dangeen ngeen ci doon wax wa 2016 autant pour moi da ngeen doon génne way boo xam ne dafa bokkoon seen album Foundation ngeen ci doon wax ndànk décora yi ba mu amoon vidéo bu raklu lu sababoon déjà vidéo bi waaw li sabab vidéo bi mooy euh, comme niñ ko gisee quoi xam nga Sénégal réew la boo xam ne euh, réew bu jekk la ci defaru réew bu jekk la ci ci mën a jëm kanam waaye jëm kanam aussi mënoo ko def sans sans sans la sécurité te ku wax sécurité euh, wax éducation pour man euh, li ñu li taxoon li ñu jublu woon ci loolu mooy artu parce que biñ koy def xëy na sax yaa ngi wax sànq di annoncé le li nga xam ne mooy le nombre de décès catastrophique bi am te daanaka sax bugguma sax wax ne bettu ma je me dis que comme li ñuy wax rek suñu suñu maam yi dañu naan wax naan euh, loo fi gis rek ndogal la waaye doomu aadama yi dañu war di sabablu donc li taxoon ñu def morceau boobu sabablu la woon mais aussi artu sénégalais yi parce que xam nañ ne que sénégalais yi c'est pas comme ni koy waxee xam nga nit ñi dañu wax naan non sénégalais yi dañu ind c'est vrai dañu indiscipliné mais c'est des gens yoo xam ne aussi seen un boo xam ne euh, laaj na ñu def taxaw seetlu maanaam boo xoolee ci ginnaaw. y des années derrière quand y a le Joola man maa ngi fàttaliku ci médias yi ni gars doon waxtaanee seen biir ni sénégalais yi demee ba nga xam ne avec ce choc là nit ñi dañu demoon ba nga xam ne ñu ngi doon commencé di retrouver seen bopp pour man le sénégalais c'est quelqu'un de très intelligent pour man mais sauf que y pas le cadre qu'il faut et loolu moo nu gënoon tax ñu def morceau boobu ndànk parce que le le le le texte était simple le titre est simple ndànk. defal ndànk parce que comme li ñuy wax daw euh, euh, daw ndànk dal ndànk loolu moo taxoon ñu def ko mais aussi bon comme on le dit c'était plutôt un placement de produit ci album bi mais ça nous a permis de faire passer le message et comme tu disais euh, tu parlais de 2018 c'est vrai que juste après 2018 il y avait la sortie de Indiscipline donc les deux étaient étaient vraiment liés voilà. ndànk décoraay xoolal oto bii di ñëw en rouge. mu ngi ci zone en ag zone d' agglomération gis nga lu muy daw benn feu bi mooy tàkk oto taxi bi war na def vingt ans ou plus oto bi ci ginnaawam moo ko ëpp doole mais romb na ko à vive allure moto bi day njëkkante amuñu casque waaw amuñu casque waaw doy na waar trop naan ndogalu yàlla la waaw doy na waar yàlla am na am na am na am na nu ko sénégalais yi sonalee lu xew ñu ne ndogalam la waaw yàlla moom sonal nañ ko waaye comme li ñu wax naan rek euh, yàlla comme sénégalais ñu wax naan euh, yàlla yàlla bay sa tool waaye euh, toll nañ foo xamante ne nii euh, pour man en fait euh, comme li ma doon wax sànq au début on est arrivé à moment où en fait on n'apprend pas de nos on a on n'a pas appris assez appris la leçon. et ça c'est c'est pour man la leçon elle doit être apprise surtout par les autorités. parce que c'est vrai on peut prendre des mesures wax comme li nga wax le gis nga li nga gis li fi am yépp. lép kenn ku ci nekk yaa ngi yaa ngi jugee ci benn kër. comme li ma wax damay delluwaat ci éducation bi. Mm. aujourd'hui c'est vrai on parle des problèmes des permis et mais pour man laata loolu nit ki ba muy tàmbalee raam boobu ci boobu sax lañ ko war a la war a dugal ci maayinam ne ëllëg cette personne la peut peut être un danger quoi. et comment on peut on être en danger en étant un mauvais chauffeur. moto bi lu muy daw. c'est incroyable. ñoo ko gisandoo. waaw ñu ko tali bi la ñu taxaw. pourtant accident bërki démb am na. waaw euh, bu 6 kilo bi. mooy bi am yoonu Tamba bi. Kaffrine waaw waa ji nee nañ waaw nee nañ euh, dafa am pneu bu explosé. Hmm. mu dem jàkkaarloog beneen accident bu frontal la. bu am yoonu ndar bi sàkkal. ñu ne waa ji dafa doon moytu mbaam jàkkaarlook benn camion. mais li tax nombre de morts yi bëri ak nombre de blessés yi mooy 32 la waroon def. Hmm. mu def 47. waay. ba tey indiscipline boobu. waaw am nga way woo si bind. si ñuy dikk si ndànk dee ko raay. Hmm. donc sénégalais yi am nañ comportement bu ñu am boo xam ne dafay feeñ ci tali bi. te tali bi xoolal xoolal xoolal Peugeot bële di ñëw si ginnaaw. ak gars yi ni ñuy. ku nekk ni muy joxu ni muy kiwee koñee sa morom quoi. wala camion bi ni muy signalé. incroyable xoolal ni muy jaadee. gisandoo donc c'est c'est c'est un dit long quoi. lii on n'a pas créé de scénario. ñoo ko gisandoo. te li nga wax noonu dama si taxaw seetlu parce que c' est vrai quarante plus de quarante morts pour benn ñaari bus. soixante soixante ñaari bis ñoo mbëkkante. Pape Sidi bus bu nekk xëy na mën na jël ñaata cinquante cherchons l' erreur. cinquante mooy normal bi mais soixante douze wala quatre vingt lañ koy def. soixante douze wala quatre vingt ci benn bus bu war a jël cinquante boo xoolee bus yi boo leen xoolee pour man man du ma du ma cinquante la war a jël ñoom ñoo ci dolli ay weer saa ay affaire voilà waaw donc yaa ngi wax sànq affaire indiscipline pour man bon c'est à l'image de notre économie pour gàttal wax bi quoi parce que c'est vrai on est on bokk nañ ci pays yi dëkk yi nga xamante ni daanaka euh, suñu économie sooxe na te loolu aussi day feeñ ci wàllum wàllu transport bi daf ciy feeñ bu baax a baax a baax te yaakaar naa ni bon c'est bien boo ñu ñu defar ay stade defar ay infrastructures yu rafet mais waroon nañ ko jiital ci sécurité nit ñi te damay taxawaat seetlu aussi ci li nga wax parce que am na importance li nga wax parce que c'est vrai il y a de morts mais ay bus yoo xam ne day transporter ay nit mbëkkante dañu war a situer responsabilité c'est vrai que transport ki dawal am na responsabilité même ki toog ci biir am na responsabilité parce que man man gisuma ne sénégalais yi du ñu bàyyi xel ci seen bopp parce que man saa yu ma duggee ci oto li may njëkk a def mooy xëcc ab ceinture. tax xoolal jib bi waaw gis nga fu mu fu mu doublé waaw mu ngi noonu donc euh, ñoo ko gisandoo daal mais euh, li ma la doon wax bu ma njëkkee dugg ci oto li may njëkka def mooy xëcc ceinture takk. Mhm. comment se fait-il qu'aujourd'hui Sénégal moo am ay autant de de mobilité urbaine mais oto boo dugg maanaam ay benn ceinture nga ciy gis. pour man foofu état bi am na liggéey bu wari bu bari bu mu war transporteurs yi dañu xeex ak état bi ne leen bëgguñu takk ceinture ndax euh, c'est pas bien pour notre sécurité dañuy agressé. loolu Pape Sidi maa ngi ree sax parce que pour man loolu amul sens quoi parce que xam nga loo xam ne sa sécurité bopp la warul sax amul sax débat foofu. Euh, xëy na bon buñ ñu ma nee par exemple voilà bus yi dañ leen tap tappal euh, kii leen. comme ni ko sunu benn jëwriñ doon waxee naan taf yëngal comme comme dëkku taf yëngal la gars yi dañuy taf yëngal te pour man loolu du yoon taf yëngal boobu moo dul yoon. te je pense dafa impacté ci tali bu baax a baax a baax yar bi dafa impacté ñàkk yar bi dafa impacté parce que yaa ngi koy gis sànq ba léegi yaa ngi gis ñenn ñi boo xoolee seen dawalin rek. di nga xam ne que nit ki comme li ñu naan tali bi xat na waaye gars yi seen xol yi xat na ba pare seen ñàkk yar moom la ñuy indi ba ci kaw tali bi te malheureusement. Euh, dafay gën a hécatombe moo am li ko nasaraan di wax tomb la créé xaw ma ndax si les gens se rendent compte mais voilà ci début demi 2023 bi li fi am barina mais boo xoolee at yi weesu chaque année boo jëlee euh, parce que man des fois damay xool chiffres yi quoi da ngay gis chiffre de yi yi yi tali di rey le nombre de personnes yi tali bi di yóbbu. di leen faagaagal. 2022 780 et quelques morts. c'est soit deux morts par jour. c'est énormissime c'est beaucoup c'est beaucoup. et 365 jours on est à plus de deux morts par. c'est beaucoup et c'est c'est beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup et et franchement. Euh, comme li ñuy wax quoi c'est vrai on, on on dira les gens sont indisciplinés ils ont une responsabilité mais pour man la plus grosse part responsabilité Euh, c'est les autorités quoi. Et là, euh, parce que c'est bien boo de, de, faire des séminaires, de faire des, des, des, euh, dans les bureaux, mais ça se passe sur le terrain, yaa y a un indice de vois. Euh, et s'il n'y a pas de sanctions, s'il n'y a pas une organisation, un cadre bien défini, bon, je pense que ñaanuma ko yàlla mais du lu may ñaan mais dinañ continuer di di def ay deuil encore et encore. voilà. Euh, Indiscipline. C'est signé Ndongo G de Daro G Family. Regardez cette vidéo, après on va parler de Ndank de Koraï ak lan lañ ci wax pourquoi ñu war ko raay talibé ngi rey te suñu jugul ci yee nit ñi dafay continuer di gën a pire on se regarde ça et on se retrouve juste après ci mbedd sotti mbalit mi sa yoon dëkkandoo faale woo yaa ngi baare tàlli bi tant koñ bi yëpp boo dajale say paan ni karapit bu yàppa fes ci digg yoon bi mu paan chauffeur bi dugg taali bi doo daan bi faalewul xiiro bi ngaayo bi kook seen apprenti kenn aatewul ñaata chauffeur ñu lim pour le feu rouge ñu ne jëm ki mooy waaja bi muy dawal ub seen bët ñu gëm ku dem yóbbaale sa jikko li aram mooy ñàkk yara jikku tilim jikko melokaan di ngay dikke ci biti ni nga njëkke ñu ngi gis nuñ lay sikke marchandise u reewande tey la gën a lamb ñëppay jënd ñëppay jaay yaa ngi tëb tëb tëdoo dal bis yaray dal te kenn kenn la raay mënoo xaar sa tour soog a ñëw burle rang bi yaa ngi ndàdde konte woo bëgg a tëb number one bi ba duggee bus tafu tafe ak sa xeet yaa ngi ñuy xër saxaar cigarette sànni fu la neex dajeti nga beneen paquet naan sa ñaru café kaas bi xaar yeneen saret yaa ngi guux sa ndox fi nga taxaw ngay sànni mbuus bi say loxo duñu set yaa ngi génn léegi douche bi Vous venez de regarder Indiscipline de Ndongo Di ñu ngi ci benn passerelle pour wan la en même temps li xew ci tali bi nga koy dund en live nous sommes toujours sur la 2STV la première chaîne de télévision privée du Sénégal pour parler des accidents le hip-hop a en un mot pour conscientiser les population si conscientisation boobu dafa am lu ñuy wax étude bu ANASER def moom la ñu dénk wàllu sécurité routière ñoom nee nañu téeméeri accident boo jël quatre-vingts yi ci nit la jógee maanaam sonn bañ a nelaw gëmmentu wala di forcer ba teg sa yaram lu mu àttanul wala tux yamba wala nan sàngara wala nekk ci tali bi di snap wala ngay jaay booy disco wala maa mun dawal wala oto bi lu ma neex laa koy def loolu mooy quatre-vingt pour cent treize pour cent tali yi dañu xat deux fois deux voies amuñ ko ci ñetti route yi nga xam ne ñoom ñooy génn Sénégal yoon wi jógee Dakar jëm Ndar day dem Mauritanie yoon wi jógee Kaolack dem bi day euh, jaar ba Guinée Bissau yoon bi jógee Kaolack dem ba Kédougou day dem ba Mali mais ñetti yooyu boo xoolee. benn voie la ku nekk boo amee problème rek dañ koy loolu mooy trois treize pour cent mu de sept pour cent boo xam ne dañ naan oto yi Sénégal boo amee huit ans du fi dugg mais oto am na quarante ans di def navette Kédougou Dakar et ça c'est une aberration. contradictoire c'est contradictoire sur tous les plans y a contradiction mais transporteurs yi dañu bëri doole bëri doole boo xam ne état bi mënut a transporter ñëpp xëy yóbbu leen jamono ji ñuy wax instant yi nii transporteurs yi dañu nekk ci grève. donc sa crée un peu ñi yor particulier ñoom ñooy am possibilité dem mais transport interurbain bi am na problème ak urbain bi ndànk décorail yi même si c'était un placement de produit c'était bien placé pourquoi il vous a fallu avoir le le bon message en 2016 ba tey ñu koy génnewaat di ko dekkalaat mu mel ne tey la bees waaw c'est comme li nga wax au début je pense que le hip-hop c'est sa vocation aussi euh, c'est vocation de de euh, éducative la ñu bari dañuy peut-être dañuy fàtte ne que boo xoolee le hip hop li ko sanc la la base même même les pionniers y a toujours benn message sociopolitique e ce message boobu dafay transversal dafay gën a évoluer aujourd'hui quand on voit l'évolution de nos de nos villes de nos capitales boo xoolee dëkk Sénégal boo xoolee Sénégal rek boo ko jëlee ci taille bi ci population bi ni muy yokkee ak euh, ci euh, le fait que aujourd'hui boo xoolee oto yi nu ñu baree boo wàccee ngoon embouteillage yi nu mu baree di nga xam ne que le danger est partout donc pourquoi on avait fait ndànk parce que le message était vraiment précis par rapport à au fait que Sénégal mu ngi doon commencer développer autoroute ñu ngi wax c'est vrai on veut développer le transport urbain mais la première des choses encore une fois parce que oto ki koy dawal doomu aadama bi la doomu aadama bi su amulee benn lucidité rek lu ndaw rek mën na def erreur te erreur l'erreur mun nañu waxle le bi erreur bi bu ñu ko doon calculer ci pourcentage erreur bi li mu mën a li mu mën a yàq moo bari yaa boo xoolee accident bi am bi am sàkkal nee nañu mbaam la maa ngi gis ñu ay ñu nit ñu doon commenté naan non pourquoi waa ji sax mbëkkul mbaam bi lu tax mu évolué mu mu mu mu doon jéem a éviter mbaam bi ba accident bi am bi am euh, bi am fële nu mu tuddati euh, côté yoonu Kaffrine bi ñaari ñaari ñaari bus yu mbëkkante la ñu ne pëne la loolu yëpp aussi pour man euh, je pense que war na am taxaw seetlu yaa ngi doon wax sànq transporteurs yi dañu grève je comprends frustration yi am mais tant que Sénégal amuñu je pense que euh, il nous manque en tout cas la population sénégalaise que ça soit autorité yi ñun il nous manque encore de l'humilité c'est-à-dire sànq boo xoolee boo seetloo benn affaire laa seetlu ci dawalinu nit ñi les gens manquent d'humilité parce que oto boo ko yoree rek. dalay lay jey man mii di wax man mii di wax personnellement bu ma yoree oto rek oto bu ko nit yoree lu mu mënta yor rek nit ki day day am benn genre. lu day am benn rëy bu muy am. yow mën naa nekk ak yow ci tali bi dama naan ah yow doo ma romb kii du ma romb wala romb na ma xaaral ma doublé ko comportement yooyu yëpp day def jeexital ci suñu dawande yi boo ko wàccee chaîne bi yëpp nga wàcc ba ci ni ñuy amee permis yi ba bi ñuy le fait que code de la route bi niñ ko war a respecté ni ko war a jàngee ni ñu ko war a saytoo loolu yëpp moo ñu puusoon pour ñu def morceau boobu ndànk c'est vrai que y a cette mélodie là qui qui fait que ça reste dans la tête des gens ndànk décoraay c'est pas c'est pas anodin c'est pas c'est pas juste ndànk décoraay mais ndànk décoraay parce que je pense que en en ayant de l'humilité bu fekkee ne def nañu ndànk rek dinañ mën a dinañ mën a artu dinañ mën a éviter lu bare bare bare donc euh, aujourd'hui euh, tali bi nekk na loo xam ne pour man nekk na une des causes de mortalité yi gën a gën a incroyable ci Sénégal donc c'est pas parce que y a des accidents en début d'année mais bu ngeen ko xoolee bu ngeen seetaatee année yi passé sànq yaa ngi joxe ay chiffres y a eu beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup d'accidents. 780 morts. C'est beaucoup. En 2022 ce qui fait deux accidents deux morts par par. par par jour. par jour et 365 jours de l'année. ma dolli ci leneen loo xam ne dama ko seetlu Sénégal tàmm nañ di on est tous voilà on est ñun ñëpp dañu bëgg di bëgg nañ téléphone mais saa yu jëyee amee li nit ñi di njëkk def c'est vrai c'est vrai di nga mais nit ñi li ñu njëkk a def mooy mooy filmer. au que ñu daw ci lieu bi jéem a dimbali nit ki loolu aussi je je relance nappel appel parce que nit ñi dañu war a ku nekk ba ci man ah, damay damay kii sama bopp dañu war a jàng les premiers li nga war a def pour la survie des gens et ça c'est important parce que am na yenn action yoo xam ne boo ko defee rek mën nga sauver nit ki mën nga sax bu fekkoon ne waroon na am autant de morts wala autant de blessés am na blessé yoo xam ne mën na lañ mën nañ la donc y vraiment de ay actions de survie yoo xam ne nit ki war na ko mën def ci tàng-tàng bi te loolu ñëpp ko war a jàng moo tax bon jëye bu amee c'est vrai on voit nu seen suñu yenn autorités dañuy daw ñëw wanewu wax ay kii mais ngir yàlla béréb yooyu pompiers yi ñoo fa a jiitu ñi nga xam ne survie la ñuy def urgentiste yi médecins yi ñooñu lañ fa soxla mais soxlawuñ di fa gis ñoo xam ne ay bureaucrates lañ wala dañuy ñëw di wane ne ñoom voilà ils font je sais pas quoi de la récupération kooku c'est un message que j'avais Le message, euh, je pense, ira à celui à qui est, est destiné ce message. Euh, on va regarder cette vidéo qui fait peur. Hein. J'avertis les âmes sensibles. Fada Freddy et Nongodin n'y sont pas allés à de main morte. Ils sont vraiment allés au fond du sujet. Ils l'ont vraiment exploré avec le travail de Iris Harvey, hein, qui nous félicitons pour euh, le travail remarquable en, dans la réalisation de cette vidéo. On va regarder ça. Dank Dekoraï. tali Sénégal baa ngi noonu tey nag dafa féex parce que dafa am grève euh, et puis gis nga boo xoolee de loin Bruno boo xoolee de loin da nga gis ne tu ne vois absolument presque rien parce que géej gi dafay joxe ci brouillard bi fii avant muy am ay passerelle presque chaque jour ñu wàññi woon fi ay nit ñu dee ak ay accidenté te transporteurs yi li tax ñu grève mooy dafa am 22 mesures yi état bi jël ñoom nee nañ arrangé wu leen c'est pas pour accident yi wàññeeku de mais arrangé wu leen parce que dafay laal seen bourse porte bagage yi nañ ko wàññi bu kenn daw 23 heures ba 5 heures du matin euh, naka la ñuy def ba visite technique ñëpp di ko mën a def ñoom nee nañ d' accord ci yooyu et l' état va finir par céder parce que amuñu alternative bu privé bi bankee loxoom lu yóbbu nit ñi di leen indi donc moo tax il va falloir vraiment euh, que ça soit un truc de euh, national un débat national euh, te fii ñu toll nii guddi yi ñu toll nii le hip hop parle il des jeunes qui sont au volant dañuy TikTok dañu am page TikTok chauffeur xawma beau gosse ils écoutent Daradji ils écoutent Dip ils écoutent Ngaaka Blindé ils écoutent le hip hop mais est-ce que xam nañ ndànk décoraay bi ñu teg léegi lan nga leen di jox comme message pour leur permettre d'être tout le temps conscient des dangers de la route waaw message bu utile la message la boo xam ne c'est vrai mën nañu foo kaf nekk ci TikTok bi partager ay affaires mais message bu mel ni Ndank Décorail c'est un message boo xam ne maa ngi en tout cas invité ñëpp tous les jeunes tous les gens qui aiment le hip hop ñu gën ko partager ñi nga xam ne ñu ngi ci ñu ngi liggéey ci garage garage yi nekk ci euh, ci horaire yi tu vois nañu fexe ñëpp dégg message parce que c'est vrai man bi nga xam ne li xew nii ci début d'année bi morceau bi mu ngi existe depuis six ans les gens ils ont ressorti le morceau et c'est vrai que yaa ngi wax sànq na gars yi ñi koy seetaan dañu def attention parce que day leen da leen di heurter effectivement bi son bi génnee ñu bari ñu ko jëkkee seetaan dañu tiit donc ça fekk fait que le morceau n'a pas beaucoup tourné le clip n'a pas énormément tourné parce que sénégalais moo ragal waa sénégalais moo moo comprendre lu woon un peu ñun suñu démarche lan la woon et la démarche c'était voilà c'est une démarche boo xam ne c'est vrai que soo buggee soo buggee euh, sensibiliser nit ki des fois foog nga heurter ko c'est une aussi qui est dans le et euh, même que ça soit par les paroles wala par l'image on peut choquer mais ça peut aussi sauver des vies et loolu loolu moo doon suñu tànk euh, donc maa ngi waxaat ñëpp. Euh, Sénégal chauffeur bu nekk am son ndànk décoraay si bu nekk di ko teg sa oto. jeune bu nekk kër gu nekk na nga am son bi na nga ko déglu na nga ko partagé ndànk décoraay. ndànk décoraay. eh Talla Talla kaay. eh Khalil ñëw na. élève bu jàng mais dafa euh, wàcc na heure bi 13 heures la ah, wàcc dégg naa. donc donc ko pousse mu teel a wàcc. waaw da nga ko ñu xam ngeen ki ah, benn jeune talent la quoi dafa bëgg. waaw eh, jeune talent la waaw. dafa ko jàppale. waaw bëggoon ko ma produire quoi. Ah, la. kii jeune macha allah quoi. jeune talent <laughs> moom moo ñu war a produire. mun naa ko am freestyle la su ngeen bëggee. <laughs> freestyle bi kay ñoom laa koy bàyyil. jaajëf akat sukki. merci beaucoup. jaajëf merci à vous Ndongo Dich je présente Talla BTB aka Oustaz. Khalil maa ngi koy wutal tour mais amaguma quoi. <laughs> <laughs> Yeah C'est la première fois que vous vous voyez si. Donc il faut me remercier hein Il faut pas aller commander de featuring parce que kii gël jeune talent la <laughs> <laughs> Merci beaucoup les gars Merci beaucoup On se retrouve juste après parce que ce gars là Khalil il a sorti quelque chose On va regarder tout à l'heure Oh yow ay bu dee le temps c'est de l'or kon Rolex mën na jënd kër rappel bu gàtt defuñ ma seeni xët xamoo ma meen xaw ma la meen tax nga may sikkal man la seenu rabbi noo nga daara yëpp man lañ sukkal teel a ni franc ak kémi seba waxal sa papa rabbi boum boum gembi seba dañ ma bëggoon jàpp ma góolu leen ni aris kepa indi parole de guerre comme que bind ak patik tepa bu bomb nga may jaay man la Israël ñeme dékku bali comme kuy gis raquette yàkkamti ni étudiant war a gis jiite leen ni professeur nga bëgg ma diis raquette aw ma temps damay job ma saaga love bëggoon naa génn school tax ma saaga prof ñi foogoon damay comédie ba mel ni saaga bi may bàyyi jàng paa bi taxaw ne ma danga doof ah leader conscient wooy ma Steve bi ko woog changé lépp tax ñu pare ci ko. c'est bon ah euh, Bruno mu ngi naan ah. sama daal yi mu ngi génn ah eh Omar bindal numéro Galsen Show si suuf quoi ah daf lay may daal. moom ak yow Bruno yëpp la wax. jeudi prochain. wala sama daal yi. dama dama sañse de. dama bandi de. te chaque jour damay bànn mais a. ni nga génn <laughs> nature bi nga génn nature bi. tey dama dama islam. vert vert vert blanc bi ah lan la. islam bi ngay islam bi la kii bi la. <laughs> tey diine nga woote de Celtic si bi la. <laughs> alors Galsen Tools 2.0 vous pouvez aller le checker sur Instagram et son numéro est écrit ici. merci beaucoup Omar Diabel Diop daf may wax ma woon numéro bi mais damay fàtte quoi te sama téléphone mu ngi fële donc ah, j'ai merci beaucoup à Lahat Style Lahat nee na am na si ay affaires yi ay yi ay affaires yu bëri. ma ne ko dinaa ñëw nga joxaat ma bu noir bu bu chocolat seerul li mu ma ko jaayee nii laxasaay bi seerul de barki yàlla. léegi Talla on vient de regarder ça va. ça va tu as la forme je t'ai présenté à Ndongo. ouais ouais c'est la première fois underground la quoi <laughs> benn kaay bu gars yi xamul. ah non moom moom franchement ndaanaan la quoi macha allah. mu ngi mën rap ba léegi. Ah, amul ba léegi bés bu muy dee. <laughs> Lirra. jaajëf maa lay wutal de. non doo ko am. barki yàlla parce que tur donc du On vient de regarder sa vidéo. On va faire quelque chose, intermittence. Tu vas lui poser des questions par rapport à son travail. Khamos Dara. Tu le poses pas pour toi, tu le poses pour nous. Nous, on est des spectateurs. Am, ma xol ba xam défaillant nga wala doo défaillant ay questions yu saf. D'accord, il n'y a pas de souci. <coughs> Alors, les gars, bi Tala Bitibi, présentateur de Arumbed. Oui. J'ai remplacé Pape Sidi Fall. tey jii maa sama liggéey bu bees bi et sama premier artiste bi ma mooy Khalil Khalil from Akatsuki. <laughs> waaw Khalil. naka mu. waaw nice nii nice nii monsieur Talla. léegi yow naka liggéey bi tay gis nañ ni depuis bi nga pare si projet Akatsuki bi yaa ngi enchaîné ay vidéo di enchaîner ay freestyle mais nu mu fa demee noonu. waaw yéen demee fa nee naa lu. Eh, eh, lii du question waay. <laughs> waaw mais question la dama baax ba de sama liggéey. waaw ah, demal demal. <laughs> non jusque parce que bàyyi rek waaye liggéey bi rek liggéey bi ñu commencé woon la euh, depuis 2017 instant yi moom nekk di continuer par far projet Akatsuki bi ñëw ñu nekk si projet bi mais après teewul ne dañuy continuer liggéey bi instant yi si lancé boobu la nekk nii lancé boobu la nekk di continuer. mais balaa boobu gis nañ nga def benn vidéo teaser boo xamante ne dafa annoncé titre yi war a génn mel comme si junj nga gars yi yow fi nga war a dem ba pare kon génnee nga sa premier vidéo bi ak Shadik bi génnee nga sa deuxième vidéo ci décembre bi génnee nga sa vidéo bii ni janvier léegi loolu noon bu weesoo lan ngay waajalaat gars yi nga xamante ne ñu ngi lay xaar ñu ngi lay suivre non parce que lépp lu may def lépp lu may def juste dama koy def pour benn pour comme ça pour mu nekk ci direction parce que live fi lépp looy travail da nga am benn direction boo xam ne fi nga jëm direction bi mooy direction projet la te incha allah si kanam bu ñu paree ci série vidéo yu nekk nii gars yi dinañ gis ñu annoncé benn affaire incha allah léegi léegi. <laughs> eh wax leen dëgg bi da ngeen a tas. <laughs> mosuñu tas. Eh, duwal sëy duwal <laughs> da ngeen wax ne. non LNM comme nekk fi LN LN LN LNM. waa Fall kaay baal ñu de. baal ñu de dañu taxaw si passerelle bi. non kaay kaay kaay looy jaay. man mbuus laay jaay. mbuus ah. mbuus mbuus am na yu 400 am na yu 500 am na yu 1000 francs. yàlla na jar ak man lu may doyee mbuus dara. ah lu may lu may doyee mbuus. non non doyoo ko dara kay. <laughs> kaa joxoon ma ko Bégaay Mbengue. <laughs> alors je disais tout à l'heure seen groupe bi da ngeen a tas ba pare di maslaa seen biir. non non mosuñu tas. mais parce que. parce que mosuñu tas mais tey job nañ benn projet. projet bi topp nañ communication bi pendant un an. octobre la woon. date de validité durée euh, projet ñaata la. non non non xaar projet du 4 ans. Pape Sidi xaar rek ne la projet bi mu génnee ba léegi dafay un an de communication mais artistes yi dañuy bàyyi ku ne instant artistes solo yi ku ne ku ne exprimé mi ngi jóob. Akatsuki mi job beneen affaire boo xam ne day ñëw incha allah mais teewul na ku nekk boo amee yëg-yëg génne benn affaire da nga koy def taal am na yëg-yëg génne album day génne album xale am na yëg-yëg génne nekk ci ay série single élément aussi miy def ay freestyle am sori miy def affaire affaire gars yi ñu ñëw groupe bi du sëy quoi ba gars yi koo tas bàyyi moom groupe bi du sëy du sëy de ah loolu nga noonu rafet na groupe bi du sëy quoi ba gars koo tas groupe bi la la na ci la <laughs> non après naa la wax lan la. lu ngoo neex waaye ko ay bàyyi mu ànd ak mbaggam. bu ñu dajawaatee la ko wax. <laughs> parce que réfléchir ko. réfléchir naa bu yàgg wala am yoonu sëy. <laughs> léegi xalil borom sëy boo ko dinee sëy deux point zéro En les événements, tu viens de faire euh, une vidéo qui a fait quand même le tour de la toile, ça a été apprécié. Est-ce que c'était une manière pour toi nga wan gars yi ne leen man tam mun naa rap comme Talla nu mu ko defee comme LM nu mu ko defee comme Sori nu mu ko defee parce que tu étais tu battais tout le temps en retrait à que boo demee si concert yi yaay gën a nangu micro bi gars yi euh, est-ce que c'était une manière pour toi wan gars yi leen da nga bandi. non non bandi bi yàgg na si ñun yàgg nañ mën rap mais jusque lépp loo gis dafa am timing quoi après timing bi moo jot ñu def benn affaire génne ko gars yi apprécier te talent bi yàgg na talent bi ñun la nekk quoi suñu la nekk bu pare heure bu ñu neex day génne benn affaire yëngal ko a ah, bu ñu paree xam nga ranger wala mais teew dafa am direction bi nekk surtout ça loolu rek la. grand yow naka la. waaw ah, maa ngi fi. noo tudd. Mamadou Saliou. yow noo tudd. Mamadou ah? foo dëkk. Camara. Camara nga dëkk. ah. fan la nekk. français En Sénégal ici. Où en Sénégal C'est ah, ah, Stade Amical. Stade Amical Oui. C'est là-bas que tu habites Oui. Tu peux passer, tu peux passer, ma chère. <laughs> Stade Amical, tu rappeur Non, non. Tu rappeur Rap Wow. Oui, oui. Je... Rappeur Wow, je sais. Vas-y, rappeur. Oh. Rap. Ok. Je m'appelle Mamadou ala e a miɗo hutini masikal am ɓe ko to mi uri barke nedi ɓe yoɓinimmi dole e ɓernde mi naafi toori eɓe o dalan wonami toori o tari ndenana hina sori ɓaji sumi majja tawi soori o soori ton texte là on dirait story whatsapp waaw il est court hein e senndugon no weldu ɓe mi inni ɗum ɗo timma senndugon no weldu ɓe mi inni ɗum ɗo hana fego maɓɓe ɓe ɓe miijitaki fes ɓe senndi men hemi miijiti mi ndaari ɗum mi tawi ɗum no satti jiwa on no wulla tungo sagata no wulla tungo senndugon no weldu ɓe mi ndaari ɗum mi tawi e mbaɗum no yurmi kanko gawal kanko saare emi jooɗi kam mi woli kanko min tigi le jooɗi heko original e naadigaga tumboguetto gande kam fimata mi yaratami tro ça dépasse 24 heures chrono maintenant o oh. maintenant merci maman saliou toi je suis un joueur c'est un joueur tu joues quoi je joue ballon Quel poste Numéro 9. Numéro 9 Oui. C'est quel poste, numéro 9 C'est lui qui est marqueur. Ah, toi, tu marques Oui. Tu similaire à quel joueur du Sénégal <laughs> ah, Non, non, tellement que je n'ai préféré en Sénégal Ah, il s'appelle Mamadou Kamara. Ma, ah, ton joueur préféré dans l'équipe Sénégal Non, non, non. Ton sort préféré en Guinée En Guinée Tu connais le Sili national, non Oui, oui, je connais le Sili. C'est qui Moi ah, je n'ai pas compris là-bas. Ya, ça se passe bien Donc Tala Biti t'a posé une question débile tout à l'heure. Donc tu prépares la sortie d'un album. Dans projet, c'est quoi un album Il a dit album, donc il connaît comme ça. album VAR VAR VAR VAR VAR VAR boobu gis nañ nga def benn vidéo teaser boo xamante ne dafa annoncé titre yi war a génn. live lépp looy travail da nga doon. bu génnee incha allah dañ ko wax. il y a trop de suspense là où il faut non, pas. Non, non, mais des fois, rien by suspense, c'est quoi Suspense yow ngay jaay ñu la ñaanal nga damay bàyyi suspense. non non instant li may jaay génn ba pare. bi laa jaay génn yes gars yi seet nañ ko léegi léegi mu nice ñëpp apprécié ko. yàlla nga dem aajo ñu bàyyi sa waay il faut nga soxor il faut nga ko ay vraies questions. waaw waaw waaw waaw waaw déjà non xamoo xamoo woon gars yi lii ba pare lii ba pare. yee salaamaaleykum salaamaaleykum Sénégal Khalil Akatsuki SN nouveau présentateur 2STV dàq nañ Pape Sidi pour ngeen njëkkoo léegi maa ko remplacé pour gars yi xam ko El Hadj jël ma ko waa yaa ngi comprendre. yee tey ñu recevoir benn artiste bu ne Akatsuki SN dëkk parcelle il se nomme Talla Biti bi yéen gis euh, day génne benn album bu tudd ADN bientôt le 20 incha allah yàggul. léegi balaa ñuy demande dama koy dama koy laaj ba pare Talla lan mooy lan mooy déjà ADN quoi lan mooy ADN. bon déjà asalaamaaleykum man la Talla Biti bi artiste rappeur duma présentateur bon <laughs> lan mooy ADN ADN mooy àdduna quoi àdduna loolu lay signifier tout court quoi. ADN àdduna àdduna mais pourquoi pourquoi nga am choix wu génne génne génne album quoi parce que gis naa ko ci réseau yi waaw di gars yi nekk ci réseau yi laa lay wax quoi gis naa ci réseau yi ñu naan pourquoi album album la moo tax nga am choix wu génnee album sa fës ci Akatsuki nga ñëw ne da ngay génne album pourquoi. waaw pour man tout doit démarrer par un contenu quoi tey jii nii d'habitude li gars yi di def aadawu rappeurs yi mooy da ngay génne freestyle génne freestyle maximum trois après nga génne benn projet tu Man, je me dis, j'ai pas besoin de passer par tout ça, quoi. C'est pas parce que je suis quelqu'un d'exceptionnel. Non, non, je suis un rappeur comme les autres, certes, mais amna sama vision am na fi ma bëgg egg, am amna li may am amna li ma bëgg def. Donc pour man li moy sama stratégie quoi. Après na bu ko gaay déglo dinañ gis quoi. waaw pour man lépp ku nekk ak sa vision quoi ku nekk ak sa stratégie. incha allah incha allah incha allah incha allah gis naa projet bi déjà c'est un projet de seize titres seize premier titre bi jàngat bu kii motivation. waaw xam nga dara non pourtant xam na gis naa a tamit salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu laa koy doon benn yooyu yàq gaamu émission bi yëpp la yàq. mais mais El Hadj Ndiaye jël ma rek. am t'es nul. mi <laughs> yàq sama CV sama CV <laughs> question dara lañ si mënul Thalabiti donc promet le 20 la sortie de cet album CD quoi bon pourquoi CD bay bay bay bay man duma duma ta duma ko ñul gi de bon CD En fait, l'album sera disponible sur toutes les plateformes. Ouais. Deezer, Spotify, Apple Music. Donc ñëpp tey jii loolu mooy culture bi quoi gars si réseau yi lañ koy dégloo si plateforme lañ koy dégloo. Maintenant pourquoi CD CD c'est un souvenir quoi c'est pas fait pour parfois si CD nga ko war a dégloo c'est juste benn souvenir boo xamante ne te su ma mënoon def vinyle vinyle laay def te pourtant vinyle moo gën a classique tu vois. c'est pour tey jii yow su ma la joxe CD bi nga téye ko soo ko tegee sa gaale wala gisee nga ne ah telle année de Talla Biti génne woon na album album baa ngi. CD day xoosu alors que clé mën nañ ko def si suñu ordinateur. li ma lay waxaat rek nee naa la CD bi objectif bi c'est pas pour nit ki déglu album bi spécialement si CD bi donc que mu xoosu que mu mais que mu damb whatever l'essentiel mooy physique bii nii nga téye ko dina doon souvenir fii quelques années di nga ne ah Talla Biti bii de génne woon na album en 2023. le 20 janvier mi ngi tuddoon ADN patati patata. À la sortie de cet album, on viendra au studio, on va faire du listening, yeah. un avant-goût de ce qui sera dans cet album, yeah. pour permettre à tout le monde d'aller l'écouter. Maintenant, je vais lire les titres. Titre bu nekk dafay ànd ak question. jàngat looy jàngat. parce que àdduna soo si nekk li nga war a def mooy jàngat Jibril bu muy feeñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li nga mooy Ikra jàngal. kon man su ma ñëwee si àdduna génnee album bu tudd àdduna li ma war a njëkk a tàmbalee mooy jàngat. jàng ak jàngat bokkul jàngat mooy analyser. waa damay jàngat ci li nga xamante ni moom laa jàng d'abord naka laa koy génnee nit ñi déglu ko lan laa dund lan mooy sama parcours ak lan mooy sama vision si àdduna. donc dama lay poser question mais da nga am droit répondre mais ay deux mots yooyu bu baree ba bëri. kuy bukki ñëpp. ñëpp ay bukki lañ. ñëpp ay jikko bukki lañ am buñ la jekkoo lañ lay coob. rombal rombal rombal yaay ta lan moo lay motiver motivation. li may motive mooy samay waajur ak sama bopp. lan ngay nangu. nangul li may nangu mooy li gën ci man ak li yàlla dogal ci man. lan nga doon xaar. li may xaar mooy li yàlla xaar si man. yow eh, oustaz nga wala. du ma oustaz. pourquoi nga am titre oustaz. parce que yaa ma tuddee oustaz. oustaz <laughs> mooy jàngalekat yi ci arab quoi. waaw bi métaphore la rek pour wane ni que am na lu may jàngale donte am naa lu may jàng na oustaz balaa moo doon oustaz am na lu mu jàng moom tamit. kon bukki mooy ñëpp bukki lañ jàngat danga am nooy débuté album bi pour jàngat def analyse bukki. affaire jungle la jekku sa moroom lekk. ci ñëpp la ñëpp. bukki li muy gën a wax mooy si politique si gouvernement bi ci société bi ak si jikko nit ñi. d'accord waaw. boo jugee Oustaz titre boobu am na titre bu tudd airdrop koo koy yónnee. airdrop benn solo moo def ak Akatsuki SN pourquoi airdrop mooy tey jii nii album bi dañoo bëgg di ko airdrop bëgguñu ko jënd mais aussi ñun dañoo ñëw airdrop suñu talent. waaw facilité bi ngay am pour jot ci sunu talent comme noonu la facilité boobu laay jël métaphore comme airdrop nu mu yombee ko tiitre jox ko koo koy jox ak loo koy jox. jox ko li ma am laay joxe li gën ci man ak li baax laay joxe ngir pour ñëpp muy samay soxna incha allah ak ñi ma xamante ne ñoo ma wër. moo ngi gis lépp kan la. yàlla. yow tu as beaucoup de spiritualité dans son album là on fait tout ça qu'est-ce que tu as fait. On fait, qui c'est on qui, qui on fait tout ça, c'est l'être humain. L'être humain est capable de tout faire. Ouais. I ah, li ma ëmp mooy li ma xamul li ma xamul moom ma ëmp ba léegi. on a combien de king au Sénégal. sous le titre new king. ñëpp ay king nen ku jug ne man maay king. yow wax nga ko ku jug ne man maay king. léegi su ma ñëwee ne man maay new king. ah dama leen di xamal ne kon yéen doon ay king ndax ku jug ne new king moom amul kenn ku ñu certifié ne yow yaay king. money power. money power mooy li ñëpp soxla si àdduna yow sooy liggéey money moo tax pour nga dem teral sa waa donc money boobu noonu ñu si bëgg ñu si bëri li ñu siy séntu mooy pouvoir le pouvoir de diriger. Baby Yo c'est-à-dire ay doxaan la quoi. waaw Baby mooy mbëggeel parce que àdduna sans mbëggeel moom. du àdduna doxal. <laughs> doxal la ko yàlla non. ndagate ci ay ndoxal ngay mujj oustaz ci ay dafa yaa mais yàlla sa ci mais yàlla mbëggil la tàmbale àdduna ah, Adama ak Awa koo eh, nga ngay waxaale ah mais nañu wante dëgg ngay doxal la ñun àdduna ci mbëggeel la tàmbale àdduna ci mbëggeel la tàmbale damay sol kawas ah <laughs> mi ngi nii <laughs> <laughs> Baby Yo oh, ça parle d'amour. c'est le son des lovers. waaw mélodiquement ça fait bien. voilà. flex c'est quoi. flex chill flex relax. Euh. laal ay volets. Ah, euh. <laughs> pour avion volet waaw. God is light. God is alive mooy yàlla mooy leer yàlla mooy lumière lépp lu ñu def ci album bi yàlla moo ñu ko leeral li fépp fu ñu jëm yàlla moo ñu koy leeral te yàlla mooy maye lépp lu ñu def defuñu ko yàlla moo ko def. c'est quoi la philosophie de cet album ce que lan nga ci bëgg wax lan nga ci bëgg wane. li ma si bëgg a wane un mooy sama tolluwaay sama gis-gisu àdduna sama vision wu àdduna. sama gis-gis ci yàlla sama gis-gis ci feet ci mbëggeel spiritualité musique bi ma nekk di def àdduna bi nit ñi di dund lépp lu si am muy côté sombre muy côté festif bi muy côté yëpp loolu laa bëgg a wane si album bi. Dans un ciel un peu sombre de l'autre côté, un nuageux, de l'autre, les bras ouverts sur une cité qui nous dit on est dans une zone habitable, Talla BTB ADN. ça veut dire quoi lan la ADN bi wuute ak ADN bi nekk si suñu waram bi ñuy transmettre suñu doom les gènes. waaw lu mu wuute mooy ADN bi àdduna la signifié quoi na moom lañ def ADN tu vois. ah c'est le de mot àdduna. voilà mën nga bind àdduna rek guddul quoi. waaw dëgg la mais tamit ku nekk ak sa àdduna ku nekk ak sa ADN voilà. mais le gars il spirituel. Il y a la, le pendentif là, Allah, et il te parle de Allah sur chaque deux titres. Hein. Oustaz est-ce que yow doo nekk Ibadou après <laughs> Ibadou musique dafa xaram ah. la. <laughs> Mawlo maa lay nuyu ah. sama fan si la fee moom comme man defe naa la. loolu yëpp ay remarques yu ma nit di def la. Bon, je ne dirais pas je dois travailler sur ça parce que je veux rester moi-même en fait. Okay. Les gens parfois dañ may imposer pour ma def lenn lu gën a lu naka laa xam lu gën a. spirit lu gën a tolloog ñun lu ñuy def bounce bouger et tout def naa ko si album bi lu bëri bëri bëri mais y a un côté boo xamante ni c'est plus fort que moi su waree ñëw rek day ñëw te dama koy bàyyi mu ñëw. ok yéen ñaar rek yéen a fi nekk Akatsuki gars yi nekkuñ fii kan moo si gën a nul. très sincèrement. Akatsuki amul ku nuyu la si si. amul amul. elle est née. Akatsuki amul wala sori sori sori. Akatsuki amul ku nuyu. il faut savoir une chose. benn artiste nuyulul ci àdduna. ah si si am na ñu non non xam nga lu tax. yow kon xam nga non attends ma wax la. man ma gis artiste nul chaque jour nga mais nit ku créé lu muy créé am na droit. ne non. kenn ku nekk si tolluwaayam lay créé te kooku noonu lu mu créé am na ñu mu neex segam am na ñu mu neex et c'est ça l'objectif kon nulul tu vois. mais tu souviens de la rencontre de Khourdabou de Sandiogo ñooñu nii la ñu wala nii objectivement quoi. Khourdabou de Sandiogo ñu est-ce que c'est des artistes ñoom. des artistes ñooñu am carrière dem studio fay def clip. ndax c'est des artistes. waaw foofu rek pour sa waa ji niilul te yaa ngi di ko wax. maa ngi tudd Max Popar. ah yaa wax léegi léegi. yéen ñëpp nuyul nga xam Max Popar moo leen su fekkee dañoo nuyul ba egsi fii fii lañ ko defaree fekkee dañoo nuyul ba egsi fii kay yàlla na ñuy gën a nuyul rek. donc c'est le 20 que ça sort sur toutes les plateformes. de streaming Deezer Spotify Apple Music plateforme yëpp Boomplay ndax gars yi dem déglu streamer ko et puis voilà quoi CD yi c'est disponible c'est à 5000 francs. parental advisory explicit ce que dafa am ay gaz des fois ay ñambaas affaire yooyu. waaw am na balaa gars yi di la jiñ ay picc ak ay na ci. waaw am na ci. ay ay ay nu yóbbante ay affaire yooyu. waaw loolu mënul ñàkk ci rab bi la bokk. am nga ñoo xam ne nuyu nga leen ci biir quoi. waaw ziar naa leen bu baa hmm. waaw. yóbbante nga leen. <laughs> yóbbante yi foog mu am. ay. ah ngeen nañ ko. non man maa ngi dem déglu. non mais album ma ko dégloo. après su ma paree dinaa def. comme dinaa wax taala wax la yow préparé ak yow mbii wax na la. mais en tout cas c'était un plaisir de vous recevoir. on s'attend à ce que le 20 arrive le 20 c'est dans. deux jours demain c'est demain annonce. et puis da ngay jaar service commercial ah. album bi ça sort demain on fait une émission intégrale aujourd'hui <laughs> merci les am am leen micro bi ngeen ah remercier leen comme yéen a présenté émission bi remercier leen Omar ak Bruno. am kenn day remercier Omar kenn waaw mais tout d'abord ñu ngi remercier sénégalais yëpp yi toog di ñu seetaan fépp waaye di seetaan taal biiti bi xalil you know ci àdduna bi ñu ngi lay big up di remercier Omar caméraman bi you know di remercier Bruno di remercier waa 2S you know waa Sénégal yëpp what's up di wax aussi un message quoi un message dégg naa information ñu ne dañoo jàpp ni dof ni dof benn nit la boo xamante ni Sénégal moo ko ñor Sénégal la bëgg et Sénégal la yàgg xeexal donc fekkee ni da nga bëgg sa dëkk di xeex sa dëkk ba pare ñu jàpp la donc y' vraiment problème quoi y' vraiment problème e seen chose boo xam ne ñu ñëpp ñu ngi koy méttitlu di wax ni état bi nañ xoolaat bu baax seen doxalin quoi c' est tout ce que j'avais à dire. li ma si li ñu si yokk mooy juste xam di wax aussi masawu ñi nga xam ne. jot nañ ñàkk seen bakkan seen famille am nañ ci ay doom yoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan ci accident yi xew di wax aussi ne état bi gën a jël en charge euh, gën a gën a gën a wax ak comme ça transporteurs yi gën a wax ak comme ça ñu nekk si tali bi yërmande gën a am si dëkk bi comme taala fi mu tëjee rek na gars yi xam nit doof c'est quelqu'un boo xam ne askan bi lay xeexal askan bi moo fi nekkal na ko gars yi bàyyi dañ bàyyi diirante mbagg yi Akatsuki la la euh, Talla la ADN disponible le 20 incha di bëggee Omar di wax El Hadj aussi na dàq Pape Sidi pour jël ma incha bu neexee yàlla. bëggee ah. allez sama gars yi dégage. Be the business. Yeah. Yeah. Yeah. Uh-huh. We the. We the. Yeah, it was good family. I'm Uh, we know. Yeah. Yeah. Alright. Uh giri giri joint bi taal tiri tiri fi jaas yi lañ lay firil duñu comédie ni pili pili pour jënd ñu amuñ prix rab ba léegi amuñ sidit dañoo tërën ba xajuñ sinit li nga sol lañuy simi changel booy li ngay def duni jinne la wala junni àll boon yi Papa Ndiaye talal boon yi tëgal ñu taaja boon yi tëgal ma concert corniche mayer coow li tëral noon yi ci kaw miin xeexu mu ma noobu coow jiib tur nañ diwlin si kaw ciin damu koron bi ci kaw king ñoo koy cooki doonay oji tëjal sa puusi mbëkk bal doo si tuusi dawal ndànk booy sa kuusi xaaja guddi di suul suli bukki tëjal sa gat nga ni bëgguñ tukki ñu ngi aéroport ngay rang buntu pikin dund luñ gis rab bi du foowe kaay waxal sa gaay ranji du toowe taat ma rappeur yi foowe taat salo paar booy dangay xaar bàyyi ma rap ay jinne ma dugg laale ma bant bu gudd ku dugg ma dugg ubbi ma buntu maa leen gën a rëy juddu double foog ñi sii suñu foog duñu yëg ci kaw ñoo ngi ci wax leen amuñ temps kon tiituñ ñoo ngi liggéey ñëwuñ kenn buñ neexee jaay taat màcc tuuñ ñoom nee nañ ma gëmal sa bopp gëm naa yàlla kon sa bopp ñoom nee nañ ma demal nga job wi na loo am rek defal sa poos Nerejea Jakarta Asli